demee ba population yi aussi am tendance di régler tout euh, par ñoom dootuñu xaar justice c'est parce que aussi quelque part am na am na défaillance quelque part bon Mamadou Awa bon quelque part am na défaillance mais man aussi la responsabilité première de les incombe aux parents parce que man Mamadou wax dëgg fa yàlla man mii di wax ak yow politicien laa mhm. maa ngi suma njaboot mais manifestation à chaque fois bu amee du ma xaar seen école ñu naan ñu cours amul man sa bopp mën naa jël suma njaboot toj ko suma biir kër eh, bon da nga leen di gis ñuy jooy ñuy ñaxtu effectivement ñàkk doom lu metti la mais nag à chaque fois bu man bu njëkk yëngu-yëngu amee waxuma la sax xale yi jàngi mais ñun ñi sax duñ dem liggéey. mais xale yi génn aussi est-ce que du est-ce que neex nañoo téye maanaam est-ce que am loo aw xoolal ñuy dee ñëpp c'est des mineurs c'est 12 ans 15 ans c'est des moins de 18 ans si c'était des personnes responsables mhm. matures ñoo xam ne ne kii ñi ils ont pris leur dañoo jël ay nit ñoo xam mais Mamadou Aw ñun loolu yëpp jaar nañ ci jamono ab temps Abdou Diouf Ablaye Wade ay yëngu-yëngal ñu ànd ci dem jël ay xeeru raay di sànneeg yu nangam nangam lu ne mënoon nañu. qu'est-ce qui a changé. qu'est-ce qui a changé c'est-à-dire la prise de conscience tey man fa ma jaaroon tey du ma nangu tey suma doom jaar fa. parce que j'ai traversé. mais c'est c'est c'est pas problème maanaam état état la boo xam ne boo ci toll loolu rek ngay gis. maanaam boo ci toll loolu rek bokk. moo tax ma ne la responsabilité des